voilà Cheikh internet ñu ngi fii toog ak suñu yaay moom mooy yaayu Baba Ndiaye di Ngaaka Blindé mu sañse nag macha allah c'est la première fois nag depuis bi ñuy xam Ngaaka Ngaaka musul tëgg te yaayam ñëwul chaque fois day ñëw di ko soutenir yaay boo ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw maa ngi leen di fay maa ngi fay bu baax. mais sa sañse bi rafet na ba pare macha allah da ngay gën a dellu xale bi ma lay par rapport ak bi ma lay mujjee gis. waaw déggal daf yëfi mag rek yëfi mag rek waaw. ñu gis ne à chaque fois depuis sa doom bi mu tàmbalee musul tëgg fen te teewoo lan moo tax. am yëg-yëg rek ci moom man ko am yëg-yëg rek moo tax fu mu tëgg rek ma ma def sama délégation ñëw teewel bis bi. waaw. ñu doon wax si ngaaka tey lan lay doon. ah ngaaka mënuma la cee wax dara nag wax dëgg yàlla ndax euh, doom la daal doom ju yërëm yaayam yërëm papaam yërëm ay rakkam macha allah waaw macha allah daal. tey mu woote nit ñi wiisi ko xale ñëw mag yi ñëw macha boo gisee loolu tey lan la lay de Euh, mbégte rek mbégte rek la may jox ndax euh, Ngaaka dafa nekk xale boo xamee dafa nekk xale bu neex a bëgg bu ñëpp bëgg sax macha allah mag ñi ndaw ñi ñëpp moo fu mu tëgg rek ma ànd ak sama délégation ñëw xale yi bëggoon na ñëw sa bari na mais comme fi dafa sori ñu ne nañ bàyyi ba beneen yoon Ngaaka moom Ngaaka ñëpp la Ngaaka àddina bi lépp la wax dëgg yàlla aussi chaque fois bu génnee rek di wax lu baax si yow di wax ni yow yaa tax muy ñafe ba euh, des fois sax day wax ba ba ba tamit taa mais nag ñu bëri dañu xamul ni yow yaa dàq rab ngaaka nan ngay def moment ba di euh, sonw ngaaka yi nga koy maîtriser ba buñ la dékkee micro nga koy rabaat comme moom ni mu koy defee. waaw loolu moom dëgg la yëg-yëg bi yëg-yëg bi ma am si moo tax son bu mu wind rek man ma mën koo way waaw yëg-yëg boobu la. Uhuh. dañ lay bàyyi nga continuer seetaan suñu dernière question rek macha allah ban kàddu ngay wax li nga xam ne moom mooy sa goro Fatel ndax moom tamit sonn na si bés bi ñu ngi koy gis ci communication bi fan yee aussi gis nañ la nga koy tëggal ah jeeg jàmm ak njëriñ muy muy image bu rafet. dëgg la waaw kooku boom jeeg jàmm ak njëriñ boobu may wax rek moo nekk ci moom jeeg bu baax jeeg bu ma yërëm jeeg bu ma tenir lu ma sol suba ba jënd so moom la di togg lu neex di yekk lu neex di ma jox. di ma jox xaalis di ma jox parfum te xam naa damaa bëgg xaalis damaa bëgg xaalis trop de mais lu ne la may defal nag loo yëg loo yëgut moo tax bu mu ñëwee ma lal ko jeeg jàmm ak njëriñ yal na leen yàlla la fal cet moo borom këram musal leen ci saytaane làq leen fa yàq yeggul loolu laa koy ñaanal gudd fa nag wér ak wér nag ba mu am lu àtte njaayeen ca kër ga nag loolu laa koy ñaanal waaw ma am kontaan te lool nag di remercier sama xarit yi ma àndal Bojel Awa Guèye ngi ni toog sama wet Daba Ndiaye te bi ma leen ko waxee léegi rek laa leen ko wax ñoom ñëpp ku si ne bàyyi sa yitte daal di ñëw mënoon nañ ne kat waroon naa leen ko wax avant mais léegi laa leen ko wax ku si nekk dagg la li nga doon def lépp nga bàyyi ko ñëw ngir jëmmal bis bi jëmmal seen doom ma leen di ñaanal ñoom tamit gudd fan ak wér ak wér yàlla la fal ñu cet ba li ñu mbébét ci kenn ku si nekk suñu morom ñun ñuy toog ñu yeggale ko ci barke Seexul Xadiim barke Sëriñ Babacar Si jërëjëf kontaan naa